de vous retrouver, Internet Diaspora Habit TV. C'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission People Diaspora. tey nag dañu ñëw daal di seet si ki nga le grand batteur qui nga xam it mu carrière soloom ci internet bi yi TikTok di ko challenge di reprendre mu am doole bu baax am visibilité wante it tëggal na ku Sénégal qui est citer ki nga xam ne mooy Sidi Diop Viviane Chidindour Mender entre autres bu ñu Alou Sips di wax ñi mu tëggal euh, fii ci Sénégal émission bi kon euh, minute yi ñu may sa day jeex ndaxte macha allah am nga euh, li mën nga li ngay def te it jox nañ la bopp ci bis bi ñu lay nuyu Alou. waaw salaamaaleykum gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di sant sama waa dëkk Kaolack nangaan sama Paris la France. Mm-hmm. fa laa juddoo fa aar waaw. ci nuyu sama waa koñ fii nga xam ne moom laa yeewoo ñu bëgg ma trop mu Ouest Foire waaw di lay nuyu yow sama sista bu baax bi di nuyu nag waa Jaspo Rapid TV nga xam da ngeen xew si jamono loolu waaw di nuyu sama cameraman yi di nuyu àdduna bi yëpp ndax man àddunaa ma bëgg di nuyu waa Diaspora bi di nuyu ñëpp

ci ginnaaw ngay nekk di tëgg mais à loolu yaa ngi mëne sa carrière solo est-ce que mun nga ñu cee ñëwal tuuti. waaw question boobu nga laaj am na solo trop parce que euh, ñu bëri dañ ma jàppee batteur mais am na si ñoo xam ne nag wax dëgg fa yàlla moom buñ ma xamee yàlla ak sama challenge yi may def ak sama son yi ak sama soirée yi am na si ñoo xam ne buñ ma xamee yàlla ak batteur la. Mm-hmm. waaw nekk si gannaaw nit di koy tëggal. mais loolu sante yalla rek. Mhm. wa sante yalla ndax mom nit ku ci nek sa yo xé war nga ñaan yalla di xam. Mhm. ndax ben nit bo xam jappal ni yow xam nga ay téméré nit. Mhm. ndax kenn nit kooku nga xam amna ñu xam kooku mu xam amna na ñeneen ñu xamaat. wa non la démé d'accord ci carrière solo bobu mu nañ xam say production instant bi fu mu toll am na ay single yu génn wala yaa ngi préparé album wala fu mu toll en fait waaw sama carrière solo bi mom yagul nak sama carrière solo yàggul. parce que man deux ans un an. kii la mat deux ans. deux ans d'accord. waaw trois ans yi manqué quoi. parce que maa son premier single mu ngi tudd ñamal ma ci ah wa ñamal ma ci la ñëk a hmm ma ànd sék sama frère muy Sidi Diop moom moo ma si aw. Mm-hmm. mooy sama premier single mom la ñëk am ci son mom la ñëk am tamit ci clip. Mm-hmm. sant yalla nak parce que premier son génn ko premier clip ci mhm. lay di koy teg mhm. waaw te amo album boo ci label boko ko fenn loolu sant mhm. du mën-mën parce que gaay mom moom ah, dañoo bax rek yenn saa damay tëdd yeewu ni sax dekk jékki rek xool son bopp célébré ak feet partout dans le monde non la demee quoi d'accord ci say de tout à l'heure il y wax ne bokkoo ci maison de production c'est quoi le souci da nga amul ñu la contacter da maison de produit tant que wala da nga bëgg am autonomie freelance autoproduction ah, Je sais que boo demee bay beaucoup ci label war nga xool foo xam ne boo fa duggee ni nga fa bëri na label fi nek nak label yu bax ma sha allah ñoo ngi liggéey waaw amna ño xamni xam ñoom may contacter pour ma bok sen label. Mhm. mais man bala may dugg si lu leer lay dugg wa duma duma dugg si lu ma xamul si prévu leer lay dugg wa bu ko yalla tuddee nak képp ku ma bëgg a liggéey dinaa liggéey képp ku ma ku ma war a liggéey dinaa liggéey moom incha bu neexee yalla mhm. ndax. euh am na label yoo xam ne moom dañuy jàpp sa carrière parce que affaire yi métti na trop. yee métti na trop parce que promotion yi gën a métti si àdduna. son métti na trop waaye promotion yi gën a métti. ça demande des moyens. Mm, si parce que aar boo si nekkee boo yàkkamtee rek yow boo yaboo bàyyil aar. Mm-hmm. ndax aar du ëmb day xëy rek wasin. Mm-hmm. noonu la demee nag. Mm-hmm batay aussi ci maison de production yoy est-ce que mun nga ñu citer quelques-unes yo xamné euh, par indiscrétion parce que ñun dañuy laaj rek hein te dañuy bëgg xam ñoo xamné ne ñoo contacté nañ la par exemple comme waa Subatel wala Djily amul yenn yo xamné ne nañ solliciter la pour une éventuelle collaboration. waaw man mom wax deug fa yàlla man Alou mom moom euh, man label yi fi nek ñep samay xarit lañ Subatel mom nga nga tudd mom Matar Diop Subatel kooku. kooku ba ma koy xam du tey moom ba ma koy xam boobu Sidi Diop ba ngi soog a door di wéy si mariage yi ak si bu tëgee tey boîte balaa muy tëggaat day toog un un mois soog a tëggaat. ci la génne woon un un bi ko ko moom. boobu sax génne ko li ma la yàgg na. <laughs> waaw Matar Diop suba teel moom moom ak suñu papa woon ba léegi tamit Bakane Seck Matar Diop suba teel mu nekk nit ku baax. <laughs> nit ku reconnaissant nit ku xam àdduna nit ku baax la Matar. li ma wax dama ko xam. Mhm. nit ku baax du que du question ay mataar mi xaalis bi muy jox gars yi non non parce que man Alou Ships man moom du ma ne gis naa yàlla te gisuma yàlla. man moom yaa ma gën a xam man boo nee Alou Ships xamaloo si teg ak a gëm boppam. daal solo waaw mais mhm. Matar Diop suba teel moom moom suba teel nit ku baax la. sama je je am na benn jour. tey mhm. saan ñoo ngi toog biras doré yoof temps yi si dee ngi def buzz waaw mais nag bokkul woon si benn label li ma leex yàgg na temps mu ngi joué ay mariage di joué ay programme affaire yooyu di def buzz nag mm-hmm. temps yooyu la génne woon kooku sinap waaw mooy ku sinap saab yee sinap saab ngeen ne kooku kooku booy kooku sinap mm-hmm. am un jour Matar Diop ñu toog si bureau doré yoof bi maanaam moom Abou Sala sama frère mu naan booy bi mooy def nice yéen nice xam nga ci mm-hmm. apprécier quoi. Mm-hmm. xam nga ak yeneen euh, label yoo xam ne tamit ñu ngi ba Europe. Mm-hmm. maa ngi déggante ak ñoom ak ay producteurs yoo xam ne nekkuñ sax Sénégal. maa ngi déggante ak ñoom ñuy liggéey si lu bari. waaw ku si mel caan Thiane Diouf Thiane Diouf borom Amérique. kooku Amérique la ne mais day ñëw Sénégal di investir jàppale artistes yi. war nañoo war nañoo def ay projets yu bari man ak moom. parce que Demba Ndiaye woo na ma ñuy waxtaan. waaw di ko ñaanal tamit moom yàlla na ko yàlla dafa jàmm muy borom Amérique. Mhm. waaw ak ñeneen ñoo xam ne mënuma lim nag. ndax temps bi moom xaju si. waaw ma ñëpp laa ma jàmm mhm. mais man alu Alou Ships bokkuma si benn label. Mhm. waaw mais nag bëgg bëgg naa nag ku si jàpp. gaa ngi siy jàpp sax mais ibbil naa ñëpp porte yi. waaw ku ma bëgg a contacter rek waaw ñëw seet si ma ñu toog waxtaan. yaay sa manager direct. non am naa manager am naa manager. d'accord. d'accord tey Alou Ships wax nga aussi phrase bu importante ndax tudd nga famille waa Bakkan Seck te hmm. ñooñu ku leen xam-xam leen ci aar nga nekk Saalum Saalum jóge Saalum ñëw Dakaaru Njaay ci mbirum aar est-ce que mun nga ñoo def benn rétrospective sur le passé bi ngay dugg ci aar yenn difficulté yi wala hmm. yenn porte yoo xam ne taxawoon nga pour am ko mais euh, c'était pas du tout évident pour ñu ubbi la ko ar ar dafa doon loo xam ne wax naa la ko sànq si biir wax boo yaakamtee rek bul def ar waaw te ar nga war a tarbiwu waaw famille boobu nga tudd nag muy famille jërëjërë famille Bakane man bagan sama papa la. direct. sama papa la de xam ma yaa ngi yoo xam ne man mais xamoo sax li mu bokk Bakane. dëgg la waaw sama papa boobu ndey ak baay sama rek papa la. ar du fen dere daa mooy sama sama mooy caat man jere laa. Mhm. xam naa alu sib sibee leen kii mais man. Seck laa sant. ok Seck laa sant. aar nag dund dund naa si lu métti parce que man dundeewu ma njëkkeewu ma Dakar man laa ne woon. def sama aar. càng mhm. tëgg. ñu mën ambiance fa laa mm. dëkk. voilà fa nga dëkk. yow ñoo bokk mhm. laa juddoo fa laa yaroo. Mhm. ba pare fa laa jàngee aar. allu sibsi bi fa lañ ma ko tuddee. man waaw maa ngi ñëw foofu maa ñëw foofu man dama dund succès ah. dund buzz avant may ñëw Dakar man yàgg toj tele yi nag télé yi dañ doon ñëw ay télé yi bari lu ma leen cité tur ñoo xam ne ñoo ne senegal ñoo fi xew waaw comme ñu mel ni yéen rek télé yi bari ñu ñëw ba Kaolack ay programme ma koy toj ñu naan booy bi kan la may jot appel fu ne temps yoruma sax téléphone dañ may dañ may dañ may oo si benn téléphone di may bégee ay westu faar su ma musaan ñëw nii su ma dem musaan seeti kenn du ma mën nangoo bàyyi sama dem mus naa def benn émission da benn mus naa def benn programme benn programme ma demoon Kaolack waaw ñoo ko doon tëgg ñun suñu fam bi ma jékki-jékki dugg di fecc jour boobu la ma dijjee bësu euh, tuddee woon ne nii xoolal booy bi tànkam yi galañ ma toj programme mm. temps yooyu la Sips génnoon ndax Sips bàkk la waaw pour ma leeral leen ko Sips bo gisé ñu tuddé ma sips dafa am ben fecc bu tuddoon sips. Mhm. fecc bi na xewon ci jamono trop. moy fecc bi da nga naan tia caa kët ged kët tia caa kat kat tia tia ked jor jor ked tia tia ked ngeen ma jor jor jor jor jor jor keesa ba ngeen ma taj sa ked pa tia kët jor sa pa ngeen ma taj sa pa taj ked pa tia tia ked lolu ma ko génne ah. kat yi bari newoon Dakar fi ne ñoko mom yé ba ba ma nekkee Kaolack nag ba télé yi ñëwee nag te jour boobu ba ma ba ma dijj bub si naan booy bi comme tànkam garañ man feccu ma de damaa toog di fecc di tëgg jamono jooju nday ndaak moo doon def Dakar Dakar na dor paa nday ndaak jékki de waa mi ngi yi damaa seetlu ku dugg mi kan moom fecc fecc mi fecc mi ak nu mu tudd ah yéen waa Kaolack mën ngeen kër lii neex na de rek ñëpp joxoñ ma tànni biir ñëpp joxoñ ne Alou Ships barki Seydine dama tiit sax nar moon fecc parce que dama tiit jur boobu nag samay gele yi baree fa newoon ma am complexe ndax. noo ko géré. yow xam nga rek ñëpp joxañ ma nag man leen waaye lii lan la ñëpp joxañ ma sama mag Nene Seck ndeysaan. Mm. moom moo tuddee feccim na sib Nene seek mm-hmm. moom moo nekk kawlax nag actuellement di toj Kaolack xew si jamono lool Nene seek mm-hmm. programme yi bari moo koy tëgg foofu waaw. ñeneen na ma allo jugal ma ne ah kon garaaw waaye ma jug rek ma jug ak sama tuwo ñëpp dee ma am fa xaalis bu bari C'est demee woon élèves japonais. di un fait Je suis un la succès avant artiste. Je Dakar. Mhm. man mhm. artiste. Je yenn artistes Je am artiste. Je ay artiste. je surtout ci artistes parce que suis artiste succès eh. yëg ba journaliste bi sax pour mu am accès artiste bi day problème artiste pour mu am Je immunité immunité bi day doon problème. c'est que suis un artiste Je bu koy da nga da nga da nga da nga da nga te fàttaliwu ko démb. dëgg la. est que dégg nga ma. bu baax waaw. te yéen mënu leen dem sans yéen ñun mënuñ dem sans yéen sans mënu leen dem sans ñun. ñun mhm. mënuñ dem sans mhm. parce que yéen yéen ñun ñooy génn ngeen koy jaay yéen a ñuy wane ñun dañ leen war respecté waaw dañ leen war respecté xam nga tey ba ma ooyee maa ngi lay soo gis nii. Mhm. mais ba ma oo ku ñu boole ma. ab sete la wax dëgg fa yàlla yaa ngi ñëw sama kër ni sa ndékki naa. yaa ma yee mais lii mooy àdduna. ëllëg ci programme nga mun nga ma ëllëg yow mun naa la soxla ëllëg mun naa soxla cameraman yi. àdduna amul solo fii boo fi ree <laughs> après yaa koy def sa bopp fii kenn joxul kenn lekk kenn joxul kenn naan. kenn amul temps. mais yàlla moo leen jagle seen liggéey bi te nag yéen a ngi siy dem fu ne man instant yi mënoo dem léegi gars yi bu ñuy dem tournée sax Europe dañuy yóbbaale seen caméraman waaw yóbbaale seen caméraman xam nga parce que euh, euh, souvenir dafa baax ndax yéenay génn souvenir yi photo souvenir la vidéo souvenir la kon dañ leen war respecté waaw artistes yu koy def ñooñu dañoo xamul rek artistes yi koy def dañoo xamul mais tey ba tey amul solo ndaxte ci di nga gis ay artistes yoo xam ne dañuy reconnaissant ba dara dul dara ñi doon àndal wala ñi doon def seen promotion ba tey ñu ngi ànd ak ñooñu ba tey accessible ba tey di leen may nopp mais bu dañu xool benn benn benn euh, genre environnement ci côté showbiz showbiz ak euh, seen concurrence showbiz ak seen yàqante showbiz ak seen defante ci talent est-ce que am na fa njëriñ est-ce que am na fa place parce que talent du fen ku mën na def wax nga lu am solo talent du fen de barki Yonent bi talent mm-hmm. du fen du fen ku mën na def mm-hmm. lu am solo gi noonu gaa yi nekk di yàqante seen biir ah dañoo xamul rek àdduna fii dara jarul dara léppay jeex barki Seydina Ahmed est ce xam benn affaire sister mm-hmm. sama téléphone bi barki Serigne Babacar si du ma ko waat ay caaxaan bëri na ñu may waxaat barki Alxuraani kër musuma leen teg bët musuma ngisi. gis. Mhm. mais damay wax ak ñom comme ñu ma bokkoon léegi baay. billaay wallaay taalaay nit day jëlee sama numéro fune parce que alxuraani karim ci télé la tok ne alu dama la bëgg message ma xam nga jox ma yaayam jox ma jox ma xam nga ay ñum togal fofu mhm. tontu ko. barki dem rek ci ben gel ne ma kontaan parce que mënon na la vocal nga vu son vu vocal mhm. bañ ma tontu. barki sëy te kooku xamoo lu mu lay jëriñ. Mm-hmm. moo tax nit ku ñëw rek ah, jàppee ni comme sa bopp parce que àdduna amul solo bëgg daa foor mm-hmm. barki sëy dina man bëgg dafa foor billaay ndax mbëggeel moo garaaw. Mm-hmm. am na ñoo xam ne am na euh, mbëggeel yoo am na artistes yoo xam ne comme par exemple jigéen xam nga jigéen day ñëw bëgg la bëgg dafa bari façon. da am soppi jigéen nga foog ne kii sax daloon nopp fekk na xoolewul sax bët yooyu bëgg moo gara moo tax ku ñëw jàppee comme sa boobu ba pare respecté ko. c'est ko man parce man boo ma messager dama lay tontu sama message day bari trop yan saa damay jàpp jour nag toog dugg sama message wàcc si suufa suufa suuf liir message yëpp tontu barki Seydina Mohamed sama ñu bari xam nga maa ngi wax ñoom te mosuma leen gis fan lañ jëlee sama numéro messenger. ñi si groupe whatsapp bi mais sant yàlla. yeah c'est rare c'est rare ci artiste li ngay wax nii déjà ñun simplicité bi ñu war rek ak accueil bi mun nañ cee témoigner parce que moo nekk suñ premier contact mais wanoo ñu succès comme ni nga ko waxee dundoo ko ah, déggoo ma de Baye man man déggoo ma de xam nañ naan Baye Fall Baye Fall si xol lay ne si xol wàcce sa bopp waaw tey ëllëg keroog benn grand daf ma wax ju am solo ni ma alu ni ngay dundee ni bu ko mës a

muy Sidi Diop ak Wali Sek gis nañ Wali Sek récemment def na tourner Italie Sidi aussi mu ngi paré est-ce que du doon toppante ndax gis nañ euh, sen ñaari clip sen ñaari euh, son yiñ mujjee teglante ñom ñaar est-ce que tay du doon lolu genre ñu ne Sidi day top, day top toppandoo wali wala copier coller day tourner fi da koy top marquage à la culotte. wa affaire yi la rek affaire yi la rek Sidi jàmbaar la ba pare daa mën na muy def nag. mën na muy def mën a wéy pire. Mhm. waaw ba pare nag ah, xoslu na si aar waaw Sidi man dama naan sax man damay jékki-jékki di toog naan gaa yi naan Sidi daa mën a wéy mais est-ce que xam nga ne Sidi wéyagul la. li muy wéy nii wéyagul. barki Serigne Babacar si. kon kañ lay wéy. Sidi Sidi mu ngi yëngal de. Sidi Sidi Sidi woyagul man maa xam li ma la wax parce dafa mën a woy piir Sidi day woy ba sama yaram di daw billaay wallaay taalaay mu ngi si yoon mu ngi liggéey yal na ko yàlla defal jàmm Sidi nga tudd tamit ki nga xam ne Waly Seck kooku tamit dafa mën a woy piir ba pare xam nga Waly musuma lekk dërëmam musuma lekk dërëmam mais nit ku baax la barki sëriñ Babacar si nit bu baax la yàlla ko yàlla defal jàmm moom tamit parce que nii la àdduna liggéey la parce que suñ demee da nga wax lu am sol dem tournée dem fii xam nga tey ñu ngi yóbbu drapeau Sénégal fu ne ñëpp lañ ko yóbbul mm-hmm. ñun artistes yëpp lañ ko yóbbul xam nga mu nekk jàmbaar waale man ku mu bokkoon lekk baay Aline Seck mm-hmm. day toog naan man Alou Ships mooy sama artiste ku topp si waa Alioune Seck sama lépp la lu ne la may defal lu ne mhm. sama dernier single woy naa ko si Alioune Seck bu yoree otoom ma yor sama oto ñu daje si tali bi day droit ci na ma wàccal wàccal ma wàcc ma ñëw ci otoom bi ñu mbalagante mu yëkkati xaalis bu bari damay tiit sax jox ma ne ma ñëwal kër ga sama son bi mujj nii moo ko doon produit mhm. tombé mu voyage kon ciy dégg waali ay doomu senegal lañ waaw ñoom ñëpp man Alou Ships néew ma fi naan nii kii nii kii noonoo mais bon, ñu diversifié par exemple tey bu ñu xaaroon Sidi mu dem France mbaa mu dem Allemagne wala mu dem Suisse. buñ. Bon, nous xaaroon par exemple tourner Italie bi. Hmm. pourquoi Italie pourquoi pas Suisse France. ñu bah, diversifier, kii yóbbu fii qui yóbbu fee. waaw mais mais mais mais si déwul xaalis ou léwul xaalis affaire amul yooyu de. ah buñ la yow nañ la fay xaalis ne la kaay tëggaloon fi nga non def leen ko France wala def leen ko Paris buñ la fay xaalis da ngay liggéey. fii amul yooyu de buñ la fay xaalis da ngay liggéey waaw Sidi yàlla na am jàmm Wally Seck yàlla na am jàmm waaw yàlla na yàlla yàlla na yàlla wéral baat bi ku si nekk yàlla na am jàmm képp koy wéykat yàlla nga am jàmm ak musicien yëpp yàlla nga am jàmm mm-hmm. yeah d'accord tey gis nañ challenge bi nga xam ne Sidi Diop def na ko mu am solo te yà nekkoon ci ginnaaw doo ñu revenir à tuuti ci Saloum bi waaw Sidi moy son Saalum mhm. yeah yee son boobu dañ ko don foyer rek son Gambie dernier Gambie Sidi bi lañ ko lañ ko créé instant dernier son bi la sax musique xam nga de yi Sidi harmonie bi rek xam dafa am oreille mom mhm. moom daa mën dafa dafa dafa dafa dafa. mën a wéy ba pare dafa euh, Sidi dafa doon koo xam ne dafa mayum yàlla balaa nga xam li ma lay wax nga toog ak Sidi barki Seydina Ahmed moom sans micro sax bu wéyee sa yaram day daw mu jékki jékki-jékki dégg harmonie bi soo soo si la wéyee xam nga. dégg nga loolu nag si la wéy. Mm-hmm. ci la ko woy Abusa la jéeri xam nga loolu harmonie la. Mm-hmm. mu woy ko ñi ko doon foyee foofu Gambie après ñu génn ñun doon nañ ko see lu yàgg ñun doon nañ ko zéelu yàgg Gambie ba nag lañ ko commencé jouer Gambie bi paase mm-hmm. mu ñëw nag def ko son mu nice waa Kaolack kontaan si Saalum Saalum yëpp kontaan si parce que ñun ay Saalum Saalum lañ. Mm-hmm. ñun ñun ñun ñun ñun dañoo doon nit ko ñun ñoo xam ne ah, ku ñu jàpp ñu jàpp la waaw. mais nag ku ñu bàyyi ñu bàyyi la. Mhm. waaw am nañ fulla boobu. Mhm. waaw mais Sidi moom daa bëgg Saalum Saalum wax dëgg jàpp leen moo tax bu fay joué day fees dell. ak bànn yaa lim ci fecc. day ñaay bànn yaa. Mhm. waaw mbokkum yaayu. Fandoy. waaw moom tamit mu ngi siy def lu nice ak njàpp. njàpp mooy booy bu ku tent bopp moom sama rakk la. moom musique yi boolewuñu sama rakk la. sama deret la. noonu la demee nag. mu woy ko mu neex aduna la neex ñi di koy bégee di koy fecc fu ne waaw di koy ñaanal rek yàlla na koy yàlla defal jàmm muy gën di nice rek. Mhm. amiin ça a été un plaisir Alou Ships lan ngay wax sa fan yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers Diaspora bi TV pour ñi nga xam ne ñu ngi xaar yeneen son wala bëgg am aussi say actualité pour la suite après clip bi nga def. waaw après ki challenge bu ma def clip bëgguma ko sax ñu bëri ñoom fan ne clip la. challenge bi nag. moom la ñuy tëjee di. ci mooy laara mooy laara laaroo laare. dégg ma laara laaroo laare. léegi eh, loolu noo ko noo noonu. que man dama nekk euh, artiste boo xam ne. Mhm. su ma yeboo ne man euh, man man comme man daf ay dafa xaw ma lan la nag mais dafa mel ni damay jékki ay jinne may sol. damay jékki-jékki ñalaw tëdd yeewu laa la wax de ay 5 heures du matin mhm. parce que inspiration dafa garaw mhm. gisoo inspiration buy ñëw day day day ñëw brusquement boo ko jugul liggéey ko wala nga enregistré ko rek dalay boo yeewoo yow dootoo mën nga dégg jàpp euh, wax bi de mhm. mais tempo ba ak rythme ba dalay da nga koy ñàkk su ma nekkee si douche nag duggee si douche yenn saa yi si laay gën a mën a inspiré wu yenn saa su ma bëggee inspiré wu dëgg xam na lay def damay nelaw ba quatre heures du ma jug sol sama jàllaabe di dox si mbedd di doxantu di wu wala balaa may mën a inspiré tamit ma ma nekk si voyage di xool garab yi ak ñax yi sama voyage yu passé maa ngi dem ndar am fii fii Louga doon fa joué benn benn affaire ma dem sama waa ji ndaa ma turindoo ndeysaan teral ma ndaa ma turindoo ma comme yaay Waly Seck mhm. waaw ma dem fu mu teral ma ne ma alu bul dal hotel bul dal fenn ñewul dal sama kër mum kërëm sax comme hotel, kërëm lo lo fa laal ya ma dem mu teral ma déglul de de li ma lay wax de ma lay wax man numay créer man damay créer mhm. waaw mu or ma alo Dakar ba pare jox ma pass mhm. ma yexi alo Dakar bi mo mo ñi alo Dakar passé Louga may xol ñax yi rek ma jéki jéki ni tey teral na ma xam nga jox ma pass ol ma allo Dakar ma jekki jekki auto bi dawal ma ndam Torino déglul de déglul ma de ma japp ko gam ma ndam Torino ba ma demee lu la teral na ma ah ol ma allo Dakar jox ma pass ma fecci faas yéeg sa auto ba sefer ba lo man face à face di laajte pass ma jox ko sama pass ma den dak ben ostaas muy o mas di lacc as ndax as bàyyil ko mu nan est-ce que dégg li ma la <laughs> naa ni nga ko riimee bu baax. waaw parce que li ma riim yëpp moo am. <laughs> daf ma jox paas ma fecc faas xam la mooy faas. mooy xale li ñu fecc tëgg ndaj war a dapat ñu war a da mbax a mbax. d'accord wax ji il faut nga dégg ko daf ma jox paas ma fecc faas. yéeg si oto yéeg si oto ba chauffeur ba jàkkaarloo man face à ku lay laaj paas day jàkkaarloo yow. Mm-hmm. jàkkaarloo man face à face di laaj paas ma jox ko sama paas ma dend ak benn oustaz si oto bi. muy oo maas ndax maas muy oo aas aas jox ko maas ndax maas bàyyil ko kaas mu naan bàyyi ko benn kaasu ataaya léegi mu agsi day wàcc si dëkk àll bi si dégg li ma wax moo tax man samay inspiration daa garaaw moo tax damay jékki-jékki naan ambiance ambiance kat yi fu ñu ma fekk di ma jaay taar ma jaay leen aar aar bi def si man star ñiy siisu may gëstu ma ànd ak Ablaye Maar daje Maar mu wax ma aar ma dund aar dégg nga wax ju ma wax. bu baax ambiance. moo tax ambiance kat xam nañ kuy àllu chips fuñ ma gis seen fit dana <laughs> waaw. non si parce que man dama xam man est ce xam luy si man bu ma may je gudd ak wér ak mm. ak jàmm mm. ah même gudd ak wér ak jàmm may ko ñëpp musique Sénégal dama koy téye. ma bu baax.

yéen a ngi dégg ñuy daaj rek dañoo xëy liggéey. pour mhm. ñàq ñi fay la ñu ñibbi. kon ñun aar lañ am waruñ nekk di ñaawoo di di wax tant lu bon dañoo war a liggéey. Mhm. man boo gisee artistes yu bëri respecté ma xamul la lan la. Euh, damaa fonk sama aar ba pare fonk sama bopp. Mhm. nit balaa kenn di lay fonk da fonk sa bopp. absolument parce que man su may def son boo dégloo sama qualité son da ngay xam ne alum yi day liggéey du ma dem si studio bu bon. su def clip damay o ñu mën may remercier ki nga xamné ne bama ba ba légui sama carrière moo may jàppal di may tourner clip muy Pac DJ Pac DJ ko ko déggu xamna ko actuellement waaw mëno tudul ñuy tourner clip bo né premier bo boo ne premier mom nga nan premier boko waxul premier hein, ah, mom nga nan deux ndax mo fi actuellement Pac DJ di may sama carrière ku ne xam ne image pak télé yi boo demee di leen clip télé yi moo la benn affaire boo demee di clip si régie boo duggee buñ dañ lay laaj kan clip bi boo leen waxee DJ mm-hmm. duñ ko vérifier naan eh, yee après ngeen mais boo leen waxee keneen ah dañ koy vérifier ndax régie gars dañuy vérifier mm-hmm. DJ moom yàlla na ko yàlla defal jàmm barki Serigne Babacar day dama koy jox du ko sax actuellement boo koy tourné da nga koy fay ay millions rap ak DJ fu ne lay dem si àdduna bi di tourné Wally Seck mi clip yi mujjee génn yu bari yi mujjee génn yëpp moo ko tourné waaw noonu la demee rek kontaan nañ Alou Ships ça été un plaisir waaw mais nag laaraa bi laaraa bi toj dëkk bi xale yi di koy tiktok di waaw laaraa bi ñu bëri dañ naa ma ñu ñu ngi ñu muy posé ay question nag maa jotee question fu ne al naaraa nga woy wala naaraa wala daaraa xamuloo woy ma ma ma ree waaw laaraa laa woy laaroo laaree barki dem daam benn gel bu moo nee na eh, gel bi dafa jékki-jékki toog ay 3 heures du matin oo ma ne ma allo sibs ma ne ko waaw mi ma maa ngi nii sama kër daa fees dell dañoo dugg si net bi ku si nekk di tàppe ñiy dugg fu ne di tàppe laara mais day dëgër seen côté mhm. du ma wéy nit ngir alal laaraa dama ko wéy te yàlla rek tax ñu dund ma ak moom xam na ma xam ñu dund lu garaaw xam na ma xam barki Seydina Mohamed ni mu ko inspiré wu nag da nag bu baax man parce que sama inspiration daa garaaw. bee ci voyage la woon Laara bi fan nga ko jëlee. Laara bu fu mu ñëwee moom. xam nu ma ko créé. Mm. këram laa dem. Mm-hmm. man bëgguma kuy mer. boo meree damay énervé. Mm-hmm. su ma ñëw ni nga mer. Mm-hmm. dama lay fexee reeloo. barki sëy moo tax boo ne en àllu loo si teg ak a mën a ambiance baax. <laughs> ma fekk un jour saa ma ñëwee këram dañuy ambiance. Mhm. un ma dem këram ndeysaan mu ne këj xam nga ndax yenn saa nit da ngay jékki-jékki rek xam nga am lu lu métti. Mhm. mu ne këj ma ne ko laara lan la mu bañ maa faale ma toog kul sama kul man tamit damaa xaw a ragal nag man moo am nu nekkee ma jékki-jékki rek ndeysaan rek coqotaan ko rek ko ne ko nii ne ko laara ne ko laaro coqotaan ko si suuf ne ko laare <laughs> rek mu ree xaqataay nag ba li ngay def ma ne ah ah kon de kon di xaaral ma dem sama xel quoi ma ne xaaral ma coqataan war ma coqataan ne ko ne ko laaraa laaroo laare rek mu tëb ñu ambiance ma ma rek ma teg ko si saa si benn gaam mhm. ne ko laara te ket ket gënd am laaroo te ket ne ko xoolal yow yëngal kii sa ba yëngal booy ah vrai nga ket ket ket laaraa te ket ket gënd am laaroo moo laaree tombe mu teg ay saabu foofu di koy jaay saabu bi. mu tudd déglu nu may inspiré de vite mhm. fait rek saabu yooyu muy jaay bio la ko tuddee mhm. bio mooy lu naturel quoi mhm, mane ne ko biyo ma ne laaraa biyo ki jadd ki jadd ki si rënta gëdd gëdd gëdd ki sa ba ki jadd ki jadd biyo ma ne laaraa ma xoolal yow gën daj gën daj gën daj daj moo laaree ngeen ma xoolal yëngal ki sa ba yëngal booy ah <laughs> di nuyu ki nga xam ne nag du ma taay di koy di koy ziar koy nuyu ki nga xam dafa gën ci man muy ndamu Torino ndamu Torino yalla na yalla defal jam borom ndugolo jërë mise mbi saxa yaa ngala fasal sigi ji ma du biran Ndiaye ma jaay jama ma jaay ma sa tuube xar yalla biran Ndiaye yalla na yalla defal jam am sa hmm? yee sama xarit sama lepp waaw muy ndamu Torino ndamu amal jam di nuyu ki nga xamne nak sama kanala muy def katé lu baax di Ousmane Nawel jien mm-hmm. Ousmane Nawel Dieng worom kaolax dima ma di yëkkati alalam di jox di ma conseil day yëkkati téléphone di wo dima message nam alu defal ni ma ngi suivre day jëk ñan tey sama artiste damay o na ma tey sama artiste mum nawel yalla na defal jamm gis na ñi nga bëggee wax ni nga wa waa Kaolack wa di nuyu ki nga xamné tamit dafa sori ci man muy Assane job mhm. Assane job borom Ouest Foire borom Kaolack nangaan Assane job sama grand tali Serigne Babacar si yalla nga am jamm Assane job Mhm. kii may tudd ni Assane Diop mii. kii dafa sori si man loolu. dëgg la barki Serigne Babacar si ñu bokk Serigne Babacar si nag. Mhm. mu nekk nit ku baax grand Assane yàlla na yàlla defal jàmm grand. gis naa ni may conseillé ak ni ma bëggee. Mhm. mbokkum yaay Zak Balla Ndour te nuyu ki nga xam ne tamit muy Ousmane Ndour. Ousmane Ndour sama sama bi moom moo ma yar moom moom moo ma yar moom Ousmane Ndour sama grand. sama lépp lu yàgg dëgg la moom ba may nekk xale bu ndaw. bàyyi ma jël sama dimbale ma rek li may wax nii. dalaa ñor ñii dañoo baax. si ba man ba may nekk xale Ousmane Ndour tay ma ñëw bu mu musaan ñëw Dakar fi vacances. <laughs> yenn saa damay jékki-jékki xam nga. du ma yor xaalis mu yëkkati xaalis di may jox na ma allo day di xool ndax reer naa war reeru ma. <laughs> yëkkati alalam di may jox na ma dama reeri <laughs> na ma jàddal fii am na fii jaayre ak loolu xale boo ko defee da du ko fàtte jamono jooju maa ngi am ay ay ay huit ans sept ans mhm. Ousmane Ndour tey yàlla def mu dem ba doon transitaire nekk kilifa si dëkk bi mhm. Ousmane Ndour yàlla na yàlla defal jàmm mooy nuyu ku ma dëkkal nag muy ko fi duggoon sànq maam jaara Bousso maam jaara Faye mbokkum yaay maman Faye mhm. mbokkum yaay faatu Gueye mbokkum yaay ah ak Serif Ndey Penda ah mbokkum yaay ah, ah, sama rakk ji soxna soxna mi nga xam ne ndeysaan dafa baax moo doon defar sànq kaas yi ak kafe yi ah yàlla ñëpp am jàmm barki yonent yàlla Muhammad yow peerey sa papa yow amal jàmm am jaara fay nee naa ko sant fay gar mi lay doon ku la yéene lu bon yàlla na waay yàlla na <laughs>